kanam ministre sport ak personne morale lamb ji muy docteur Alioune saar léegi nag ñun liñ ci waroon lépp def nañ ko li ci des CNG moo ko yor ak le ministère waaye sant nañ yàlla parce que lamb ji jeex na am beauté. jërëjëf tonton Khadim waaye dañuy ñëw ba léegi euh, ci mbër yi seen i nan ngay def ak ñoom. waaw loolu nag xam nga mënu ma ci wax CNG moo ko yor en tout man li ma waroon mooy. lépp lo xamni waron waroon ko def ci suma cahier de charge def nako ko yi mi ngi CNC ñaari affaire ci am ma ngi deglo CNC soit parce que man combat lañ ma ndax bëree luñu ma suñu paré man na leen a Kaffrine comme man na leen a Djourbel comme man na leen a kon kon ñom ñu wat drapeau sa xarit sa jabar muy muy waaw ñu wat ko ak fuñu ko a drapeau am lañuy inshallah bu neex yalla parce que trophée baangi ñu denc parce que bés boobu feet la woon bu ñu doon sargal sa boroom këram duñ ko ci sargal yàlla dogal si loolu heure bu mbër yi paree loolu nag ci seen see la des sanction yi moo xam déwén wala déwén jéeg heure bu ñu paree combat lañ ma ameel wala lu ci CNG dogal dinaa xam na naka lay demee.